Eh, ngor itam day dàqu donc kaddu jom ngor ful la doog a ñëw beneen bi lu am solo la beneen bi mooy département de Mbour nanu dëkk commune bu sinja ñu dëkkee zone lébu zone lébu dafa am ñaari village yu mag ci Mbour mooy Gandigal ak Ngiriñ polarisé ay yeneeni village yoo xamante ne ñoo fa nekk amul nag CM moom na ñuy jooy revenu population yi dafa nekk ay revenu yu modeste ndox dañ koy jënd ñoom mu nuy naan boole ci itam di fayal seeni ja doom ñuy jàngi ci yeneen communes yi muy sali muy Ngexoox muy Ngapparu et consort élève bu ci nekk bu dee dafay fay 1000 francs par jour bu dee 300 élèves la monsieur le ministre 300 euh, élèves 300 000 francs par jour la vingt deux jours yi 6 millions 600 la bu dee neuf mois yi dafa lay jox cinquante neuf million buy génn ci village bu pauvre dafay biime nit ñi boo amee ñeenti élèves benn bi mooy mujj di jàng yi seeb yi ñeneen ñi toog moo tax monsieur le ministre monsieur le directeur de l'enseignement moyen secondaire dañ koy ñaan mu jël en charge préoccupation population yooyu parce que foofu urbanisation bu doy waar moom moo fa am euh, beneen bi mooy mbuur li muy réclamer mooy mu am Euh, inspection d'académie parce que dëkk bu mag la looy def da ngay dem Thiès diplôme yeeg yëpp da ngay déplacé wu dem Thiès te da ngay gis ne Mbour 1 rek ëpp na inspection d'académie waxuma la nag département de Mbour bi yëpp beneen bi mooy monsieur le ministre école Mbour yi danu manqué table banc danu manqué itam ay enseignants parce que élèves yi dañu bari loolu moo tax double flux mooy am ak yeneen système yoo xamante ne du système yu baax ci enseignement bi ñu lay ñaan ngeen dolli ñu personnel bu baax beneen bi mooy monsieur le ministre euh, enseignement coranique bi lu am solo la da ngay gis ne xale bi bu ci jaaree day ñett ñett kii euh, cycle premier primaire bi ñetti classe lay def pour pour def examen loolu moo tax. war nanoo gën a dëgëral loolu te beneen bi bu dee enseignement enseignants yi danoo manqué dafa fekk cycle bi moo gudd CI ba cm xool naka na ni wàññee cycle bi bu ko defee euh, enseignement enseignants yi mën a doy ci CSN itam nee nañ école primaire yi amul clôture CSN commune bu CSN danu manqué clôture beneen bi école mbuur yi yi nekk surtout ci àll bi amuñu ay toilettes amuñu ay toilettes euh, waxtaan nag benn euh, euh, collègue benn xarit bu nekk ci inspection bi nee na ma gis nga inscription yu ñu wàññi ñi ko wàññi danoo xamul ne mbaa xam nañu sax ne li nga xamante ne mooy fonctionnement wu école yi budget yi matewu ko te ci nañuy defaree ci nañuy fayee gardien yi mais également ci nañuy defee toilettes yi yenn matériel direct yi ci nañ koy ci nan koy euh, mottalee loolu moo tax dañuy ñaan ñu xoolaat lu ni mel xam naa loolu monsieur le ministre moo doon kàddu yi di leen sant di leen gërëm di leen wax ne département de Mbour bàyyi leen ci xel du departement bu ndaw ci planification bi cent mille habitants te Mbour bu ñu tegee post te teg yeneen dëkk yi ñëpp post Mbour na ni xëccoo Mbour doon tout et ne et reçoit et salaamaaleykum wa rahmatullah. merci.